سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله الرحمن الرحيم إله إلا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نين لين نيو درين زيار درين بال اخ باخ درين بال اخ دي اندات اك يين سي سونو لسون نين دي ديفال تاي خم غن دي موي سونو نينتيلو درس bi and ak yeen ba tey ngi woon ci suñu tem bi nga xamne mom lañuy wax dawrul maratul muslima fil mujtama rolu julit bu jigen ci society bi xam ngeen rolu julit bu jigen. mënuñu ko wax te xamuñu jigen wala duñu jang te duñu jangale jigen fi mu nekkon avant islam di ñew ak fi ka islam fek ak fi ka islam tek ñi ngi woon ak yeen ci suñu leçon bu mujj bi islam fi mu teg jigéen bu nekkee soxna mu nekk koo xamante ni daf ko teral mu nekk doom bu jigéen mu nekk yaay waaye mu nekk soxna waaye ànd ak loolu lépp mbokk jullit yu jigéen yi jigéen nag bi islam ñëwee ba teg ko foofu dañu nekk ñoo xam ne dañoo xam yëg fi leen islam teg dañoo yëg place bu rëy bi nga xam ne moom la islam jox ñu xeex ba islam taxaw fii tey ñu xeex nekk ay jàmbaar ndax ku nekk xam na ne jigéen ñi desuñu ginnaaw ci islam bi jigéen boobu ki nga xam ne moom lañ siy njëkk a tudd muy koo xam ne tey buñ nee ku dereetam njëkk a tuuru ci islam lañ koy tudd xel yëpp daj ko muy Sumayya Sumayya am ndam lu rëy mu nekk ku njëkk a ci yoonu yàlla te pourtant boobu sax amoon na ay góor waaye njàmbaarteem moo tax yàlla terale ko li muy nekk jigéen lépp teewul mu nekk ki njëkk a ci islaam dangay xool Sumayya radiyallahu anha ñu koy dóor di ko mbugal di dóor jabaram euh, jëkkëram ak doomam bu góor di leen mbugal mbugal yu tar mbugal yu metti di leen yeew ci naaj bi di jël ay feer yu tàng jër di leen ko paase loolu lépp teewul mu daa di téye ngëm yàlla am dëgër ci ba bi salaa salaam daf leen daan romb naan leen sobran ala yaasir fa inna mawidakumul janna muñ leen waa kër yaasir seen rendez ëllëg àjjana la loolu yokk leen ngëm yàlla waaye ñoom sax mbugal gi li muy metti metti mën nañ ne sama yem moo ci gënoon metti le ndax keroog ba abu lahab jëlee abu jahlin ñëwee daal di koy jël ne ko weddil muhammad ma libéré la nga dem mu daal ni ko man duma weddi muhammad yàlla laa gëm ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam si la ko reyee rey bu ñaaw boobu ba nga xam ni dafay am nekk koo xamante ni am place bu rëy teraanga bu rëy muy ki njëkk a ci islaam biñ koy rey mu metti lool waaye yëngatuwul raful yox yaxewul ngir diine islaamam ngir diine jëm fii ci kanam bu ñu xoolee ki nga xam ne mooy suñu yaay Xadija radiyallahu anha kooku tamit gis nga ni mu soutenir diine ji ni mu jàppalee sang bi sallallahu alayhi wa keroog ba sang bi demee xaarul xiraa malaaka jibril feeñu ko xoj ko naan ko jàngal sonal ko lol mu gis lu musta gis deg lu musta deg daw ñibi kërëm ndax xam ngeen ni goor fu mu jaxlé kërëm lay bu mu démé soxna sam fa fekk muy khadija radhiyallahu anha mom moko dalal bu yonent bi salaa sallam ñëwee na ko sàng ma zammiluni zammiluni sang leen ma dama jommi dama tit ay man toroxna khadija radhiyallahu anha nu kallah laa yuxzika allahu abada déedéet yow muhammad dalal ndax yow jommi woo te yow yàlla du la gàcceel mukk ndax yow da ngay jokk mbokk da ngay teral gan dangay ngay dimbale ñu sonn dangay jàppale ñu ñàkk bu mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xelam xaw a dellu si mu dal yemul foofu de moom Xadija radiyallahu anha mu ne ko dinaa xool li nga xam ne dalay dikkal ndax seytaane la wala ndax malaaka la ndax xam ngeen ni seytaane moom bopp neen la bëgg mais malaaka bopp neen daf koy déranger mbokk yi loolu di jàngale bu rëy ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yaay Xadija radiyallahu anha ñu si waxaale occasion suñu mbokk jullit yu jigéen ñi ku ciy def bopp neen na la leer yaa ngi lor ñi nga xam ne ñooy malaaka yi yaa yi ndax bopp leen di déranger te xanaa jurit bëggul lor kenn mbokk juritam sax waxuma la ab malaaka kon ñu sàmm cër yi di ko muur surtout bopp yi ak jëmm ji yëpp comme ni ko yàlla santaanee Xadija radiyallahu anha mu ne su muree ko su dundee musóor bi mu defoon mu ne yent bi ndax yaa ngi gis li la dikkal mu ne ko gisatuma dara malaaka bi dafay dem su jëlaatee musóor bi mu teg ko ci boppam mu ne ko ndax yaa ngi gis li la daan dikkal mu ne ko waaw maa ngi koy gis mu ne li si yalla la ko waaye yamul fofu mom radiyallahu anha daf ko jël yóbbu ko ci waraqatum lu nawfal doomu bàjjanam ne ko xoolal ma lan mo dal sama borom kër bi kon nga gis ni jigen ci gatal dafa nek ko xamanteni dafa yag dimbal Islam. dafa yag soutenir Islam. dafa yag taxaw ci wote bi nga xamni mom lañuy wote jëm ci islam muy da'wa bi kon jigéen nekk koo xam ne dafa gëm li nga xamante ne moom la islaam indi ci moom kon ñun mbokk jullit yu jigéen ñi loolu dafa nekk loo xam ne dañoo war a xam fan la ñu islaam fekk dañoo war a xam fan la ñu islaam indi waaye dañoo war a xam suñu bopp ak ñun ñooy ñan tey jii day mbokk yi booy xool dañ naan dem nañ ba nga xam ne fa ñu islaam jëlee woon dafa mel ni ñu ngi fee bëgg a delloowaat suñu bopp buumu njaam gi nga xam ne moom la ñu islaam daggaloon ba kenn du ñu jënd kenn du ñu jaay suturaal ñu tey dafa mel ni dañoo dem ba bugg a dagg buumi njaam googu bugg a delloowaat suñu bopp ci buumi njaam gi nga xam ne moo amoon bu njëkk ndax bu njëkk am na yenn col yoo xam ne ku ko daan sol dañuy xam ne yow mii doo gor jaam nga ngeen baal ñu ci kàddu gi mais noonu la islaam jàngale sol yu gàtt ku ko daan sol bu njëkk dañ naan kii du gor jaam ñi rek ñu daan soloo noonu ñu daan sol muri seeni cër parce que dañuy bëgg wanewu mais gor dëgg bu jëkk ba ci islaam góor dëgg daf daan muur ay cëram suturaal boppam ñu xam ne kii am na boroom boroomam mooy kan buur bi subhanahu wa taala dëgg moo daan nekk koo xam ne buy wax ndànk lay wax su génnee ci mbedd mi déglu képp ñëpp lay waxal day wax wax ju am fulla ndax dafay am personnalité ci boppam jaam ñi rek ñu daan sol yére yi gàtt di taxawaalu ci marché yi pour ñu bëgg a gis ku leen jënd ci seen sang yi ñu mën a libéré wu foofu dem feneen bu ñuy wax di yuuxu ci kaw bu ñuy wax di wëndali seeni bët pour di bëgg a charmer nit ñi pour ñu mën leen a jënd ñu nekk ndax ay marchandises lañu woon te xam ngeen ni jaam moom bu la neexee jaay bu la neexee goreel bu la neexee denc waaye gor dëgg yi ñoom ñoo nekkoon ñu yiw ñi waaye mbokk yi tey da ngay rus boo gisee suñu mbokk jullit yu jigéen yi te ñun bu ñuy waxal jullit yu jigéen yi la ñuy waxal delluwaat ci mbuumu jaam googu di sol yu gàtt di génn yoo xam ne dangay nekk si biir kër sax léeg-léeg rus koo sol waaye di ko génn ci mbedd mi di sol di wax wax ju vulgaire ci mbedd mi di tàppante ci mbedd mi di xàqataay di yuuxu ci mbedd mi duñ ci bàyyi xel duñu bàyyi xel ni ñoom dañoo am boroom boroom boo xam ni moom de mi ngi leen di surveiller borom boo xam ne mi ngi leen di fuglu boroom boo xam ne mi ngi leen di xool boroom boo xam ne dafa leen a sant yiw sant leen baax sant leen li nga xamante ne mooy teraanga ndax fonk gi mu leen fonk ak bëgg gi mu leen bëgg ak goreel gi mu leen bëgg a goreel ci buumu jaam waaye am na si ñun ñoo xam ne tey dañoo bëgg a dellu ci asfala leen yàlla nañ ci yàlla musal kon mbokk jullit yu jigéen yi ñu ngi leen di joxaat dig daje ci suñu yeneen jotaay incha allah di leen santaat bu baax di leen gërëm képp ku bëgg a jokkoo ak ñun na woote ci numéro yi 77 965 22 23 wala 70 307 80 55 Malick ñu ngi lay santaat di la gërëmaat suñu sponsor boobu di la jaajëfalaat di wax ni yàlla na yàlla fay la yiw yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko ñu leen di joxaat dig daje ci ay bis di insha allah di leen jaajëfalaat surtout yeen ñi nga xamni ni yéen a ñuy ci suñu page facebook ak yeen ñi nga xamni ne yéen nekk ci suñu groupe whatsapp yi ak ci youtube bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yalla subhanahu wa taala mooy ñu dégg ak top ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر